dana àndit wasman dana ànd ak lisim yoo xam ne xàlla qablahu alxabar maanaam xabar ja dawlu na ko xàlla wàcc na alxabar qablahu la jëkk lisim ja ni ki inna fi dalika la ibratan ñu daal bu daal di jëm ci leneen wa inna laka la ajran inna fi dalika la ibratan lu dëgg wa waslu ma bidil xuruufi mubtilu imaalaha wa qad yubaqa al amalu fii layta de ittifaqan wa fi gayriha ala xilaafi saxiix wa waslu ma dolli ma zaida bidil xuruufi ci xaraf yii di nasam lisim di rafa xabar soo ci jokkee ma zaida niki inna ndey ji nga ni innama loolu jokk googu muftilun luy yàq la imaalaha jëfloom kon lay dikk ci gannaawam mubtada xabar innama zaydun qaa'imun ngay wax kat bu dul woon maa nga ni inna zaydan qaa'imun bu la neex du dëgg waaye bu maa dikkee nga ni innama huwa innama zaydun qaa'imun loolu nag yëpp la dégg nga wa qad yu baqaa mënees na desal al amalu ja léeg-léeg am nañu ni laakin naag ka ana yooyu yëpp mën na caa am comme mulxatul iraab xam nga tudd na ci moom tudd na ci yu bare te loolu mazhabu yenn naxw yi na waaye wa saxiixu annahu muxtasun bi layta layta waaw layta daal moom yëpp yam soo ne layta ma layta ma zaydun qaa'imun wala layta ma zaydan qaa'imun riwaaya nañu ko baytu naabiga ala layta xaalat ala layta ma haada alxamaama lana ñii riwaaya ala layta ma haada alxamaamu lana lu dëgg kon xamaamu jooju nga xam ne naatu haada la kon moo nasabam ak rafa moo tegtale ni haada mii di lisimu layta rafa nañu ko place rafa la ne mbaabu nasab nañu wa qad yubaqa al amalu fii layta de ittifaqan wa fi gayriha ala al xilaafi wa saxiixu أنه مختص بالليل لخفش لخفش أك كسائي waaw waaye nag nee ñu was li lii saxiix dëgg mooy ni ci layta rek lañu ko dégg wa jaaizun rafuka mactuufan ala mansuubi inna bacda an tastakmila xabaraha wa jaaizun lu dag wa rafuka sarafa mactuufan lu ñu ataf ala mansuubi inna ci lisimu inna jañu nasab nga nga di ca nga nga raf nga dé nga nga maatuuf moomee raf o ko nga rafaa ko ci gannaaw ma lisimu inna baada an tastakmila gannaaw ba inna jëlee xabaraha xabaram ba noppi nee na loolu jaaisun boo taqdimun nga ne wa jaaisun lu dagan la raf o ko sa rafaa maatuufan lu ñu ataf ala mansuubi inna waaye baada an tastakmila inna xabaraha gannaaw ba inna jëlee xabaram ba mu mat ba noppi dégg nga inna saydan qaa'imun wa amrun loolu dana dagan ñu ne nag waaw fu ñu ko ataf xaqiqa ñu ne xanaa ci palaasu lisimi inna ndaxte mubtada la woon ca cosaan la jëkk inna kon nag mara am na ñu ne tam boo ko rafa noonu dagan na waaye mubtada la mu ñu xabab xabaram de loolu nag nee ñu wax wa asax moo gën a asax ci taqdir nga ne inna saydan qaa'imun wa amrun kadalika nee ñu nee ñu daal li gën wér loolooy taqdir bi am nañu ci maxallu lisimu inna li annahu fi maxalli rafi bil ibtidaai qabla duxuli inna dégg nga baada an tastakmila amma qabla an tastakmila fala yajuusu wa qad sumia في قوله ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب يسنيكو لغي فإني وقيار مدال أتفخات تلي سمي إن تموي دامير متكلم بو تخبر جدك قل لولو يني شاذ أم يني ديدت لولو وقيار مبتدل رك بدق خبرم دنيكو حذف ndax in wa man yaku bil amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la garibu maanaam fa inni la garibun wa qayyarun kadalik nangu was walladina haadu wassaabuuna wan nasaara wassaabuuna moomu ñu ataf ko am na ñu ñu ni loolu am na ah baytu woowat ñu daal di ko booleeg loolu taf ko ca fa indi wa qayaaru ña koy bañ nag inni kooyu mubtada la yoo xam ne xabaram dañ koo xadaf wa fa inni wa qayaarun kadalika fa inni la garibun wa qayaarun kadalik qayaar mooy daabay woykat bi daabaam la maanaam koo xam ne ci madina la dëkk ah man wute naag man man maa maa qayaar doxandeem lanu fi wa man yaku amsa bil madinati raxluhu maanaa këram fa inni wa qayaarun biha la garibu wa jaisun rafuka maatufan ala mansubi inna baada an tastakmila wa amma qabla istikmali fa fihi xilaafun والمشهور امتناعه وألحقت وأن المرفوع مبتدأ محذوف الخبر وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولا عل وكأن من وألحقت يجلسنا إن لكن أك أن يو لدق من دون ليت تدل ليتنا كن دكو كده wala alla wa ka ana yooyu kenn du ci ataf baada an astakmila xabarahu waaye nag ilxaaq bi ilxaaq ah dañu ko daan def ci loo xani waaye da ko moom muy xaqam di cosaanam keneen ka ko moomul ñu ne ah yégal nañu ko ci barkeb diw taas nañu mu ni lii nag du xaqu inna kon dafa waroon nee ñu ni wa misluhu fi daaka lakinna wa an dafa waroon ni laakin naag an na ñoo ci am min dooni layta wa ka anna wa laalla wa ka an wa ulxiqat almaftuux ulxiqat xukmu alatfi ala ismiha bennoon tan niki tey taqulu ma zaydun qaimun lakinna amran muntaliqun wa xaalidun wa xaalidan bi nasbi xaalid wa rafuhu wa xaalidan baa nga ni wa xaalidun alimtu anna zaydan qaimun وبكرا بنصب بكر ورفعه علمت أن زيدا قائما قائم وبكر نينا كون لعل أك أن أغليت دينغا ديغل لكن ناغل أن دانا يلين يغل تي إن نيني دفوروني ومثله في ذاك لكن ndax lii du àqu inna ju ñu naan dañuy yéegal diw ci barkeb inna dégg nga li mu wax min dooni layta ci lu dul layta kenn du ataf ci lisimu layta baada an tastaqbil xabara bi raf de dégg wala alla wa ka anna yooyu yet ba tey nu dellu ci inna wa xufifat inna fa qalla al amalu wa talzamu laamu ida ma tuhmalu fariqan fariqatan li nafi wal isbat wa xufifat woyofaleef na inna mu nekk in su boobaa nag fa yaksuru ihmaaluha bañ koo jëf loola ca topp di mubtada xabar mooy bare wa yaqillu imaaluha dana néew ñu jëfloo ko te it dagan na nag xataa jàng nañu ci wa in kullan lama la yuwaffiyannahum rabbuka amaaluhum in kullan inna kullan ama bu fekkee ni nag in dañu koo taxfiif te mu jëf lu mu néew néew feeñ na ni innay tawki inna jëdoon fedd li moo mën a nasab li sim rafaa xabar kenn du ko jaawaleeg ini dàq jooju soo nee in kullan rek dana wóor nit du ak dàq ak saxal la gu ñuy dëgëral inna kullan la woon ndaxte in juñuy jiy dàq du du du nasab li sim rafa xabar amaa bu fekkee dafa jëf moom feeñ na amaa bu jëful nag lënt mën na ca am moo tax dana am lu ñu ko dawee ñuy indi laam googu nga xam ne moo daan nekk ci xabaru inna di feddali di di feddali isbaat ñu mu daal di war waxu fi fat inna faqal la di néew al amalu jëf ja waaye bu ñu ko jëfee amul lent soo boob du am laam wa wa talzamu dana war laam ga nag day dikk ida ma tuhmalu suñu ko niinalee lil farqi bayna nafi wal isbat ni ki wa in kullun lama jamiun ladayna muhdarun gis loo laam googu in kullun inna kullan moo doon cosaan ba ñu ko ihmaalee te weefal ko day daal di niroog ak dàq de day niroog in bii dàq moo tax boo indee laam gi nag mu tàq lay dàq ak isbaat ñu xam ne ah laam gi kat ak saxala fi am bat moom lay dëgëral si du dëgg wa nahnu kooku riwaaya la maa ngi xamoon anabnu moom la kii andi di anabnu ubaate daymi min ma min aali malikin wa in malikun kaanat kiraamal maadini su fekkee maanaa bi feeñ na yarhamkum kon laam gi mën nañ ko bàyyi du wàññi dara bu fekkee lënt amul ndax laam gi da doon lënt dàq lënt da doon taqalee si diggante nafi ak isbaat bañ ñu lëntoo su fekkee maanaa mi feeñ na kooku nag maanaam feeñ na ndax ñëpp xam na ni ki naan man maay doomu ñu nanguwul kenn ku leen tooñ ci famille yu Malick dootu dellu di saboote famille yu Malick fi ci benn bayt du dëgg kon ba mu ne wa in malikun kaanat kiraamal maadini xam na ni ni jëfandoowu ko waaye dafa bëggoon ni wa inna malikan kaanat kiraamal maadini nekk nañ ku tedd ay cosaan in malikun ba tey su fekkoon jëfloo na ko ni wa in malikan ba tey lent du am waaye nag bi nga xamee ni jëfloowu ko du tax fii bi bi ci bii place xaasatan xam ni kii day damu dana tax nu xam ni dàqul te daa ngay giir googu tudd Malick ku damoo ak giir seen tedd nga da nga ko da nga ko dàqal tedd nga in malikun wóor na ni Malick kaanat nekk na kiraamal maadini di ko tedd cosaan ndax dafa ni man maay ubaat maay doomu ñu nanguwul ku leen tooñ ci famille yu Malick mu teg ca ni wër na ni Malick dafa doon ñu tëdd ca saan Malick tudd xabila la dégg kooku faxru bi ñu ci jublu mooy dalil ni kii dafa dàqul du jaadu ni man maay doomu diw ndax diw teddul loolu kenn ko man maay doomu diw ndax diw ku tedd la ku cod loolu la ñu mën a wax ana bu ñu ubaate bay waaye wa daal li ñu wax daal su am yelloon na mu ni wa in malikun la kaanat kiraamal maadini dégg nga waaye nag andiwul laam nga ndax it maanaam ni leer na xam nañu ni day saxal dàqut su dul woon feneen nag kenn du xam day dàqam déet laamu am na ñu ne nag laamu libtidaa u ga woon ca xabari inna mooma waaye am na itam ñu naan geneen laam la rek boo xam ne dañ ko andi pour loolu wa talzamu day taqoo laam ida ma tuhmalu laam googu nag li baytu woowu war a dikke mu danu dangaa teel a wax shahid bi li ko moom waaye nag wa rubbama stoxmiya anha in bada manaatiqun araadahu mu'tamidan ala qarinatin wa rubbama stoxmiya anha léeg-léeg ñu doylu wal islam ji in bada su feeñee maa la nga xam ne naatiqun aji wax araadahu jublu na ko maanaam bi mu jëm mu'tamidan muy sukkandiku ci qarina bu ko tegtale dalil bu ko tegtale ni ki dalil bi fii mooy faxru bi ci ana bnu ubaati daymi min aali malikin loolu dalil la ni wa inna malikan moo doon cosaan wa in malikun kaanat kiraamal maadini wal fi'lu in lam yaku naasixan fala tul fiihi gaaliban bi in zi muusala fi'l jumlay fi'l ji doon nekk xabaru lisimi in na jooju ñu woyofal def ko in te fi'l topp ca in lam yakku su feel nekkul naasixan di feeli naasix kaana ak i bokkam kaana kaada yi deme noonu bu dul moom falaa tul fiihi doo ko fekk muusalan muy luñ jokk bi in ci in jii jii jii nga xam ne muxaffaf min athaqila la nu wax in jii nga xam ne dañ koo woyofale ci inna te maanaama des fa bu tawkiit nee na bu feel dul naasix xaaliban doo ko fekk mu ànd ak moom de wa in kaanat la kabiratan nga jàng ci alquran lu ndëgg dégg nga wa in yakaadu alladina kafaru la yasriquunaka asluhu innahu yakaadu alladina kafaru wa in wajadnaa aksarahum wajada ci bokki inna la bokki ci naasix yi la bokk dafa bokk ci bokki zanna yi ndax day nasab li si mag waaye naasix la rek fiil daal du doon xabar ja ndegam du naasix du jokkaloo in ji mukk waaw ah xaaliban la wax xayrul xaalib ah mooy qawluhum in yazi in yaziinuka la nafsuka wa in yashiinuka la hiya jëf nga mu ngi daal di indi feel jooxaani feelu taam la du naasix te innahoo la innahoo yaziinuka nafsuka mu ni in yazi in yaziinuka la nafsuka feel ji nga xam ne moo ci sës moo doon xabar xabar ji ndaxte lu doon cosaan innahu yaz yaziinuka taziinuka nafsuka ñu xadaf damir ja bi ñu taxfiifee inna te teewul muy tawkiit ba tey fiil nag waru ci woon sës bu dul naasix waaye dégg nañu loolu in yasinuka la nafsik li gën a néewati mu doon feelu maat bu dee mu daari on sax waaye mu doon fa feelu maat ni ki sallat yaminuka in qatalta la musliman xallat alayka uqubatul mutaamidi dégg nga ka bismillah xanaa kara yoon Zubayr ibnu Awaam lañ ko doo xasida boobu de xanaa di ko ñaanal xaalatu aatikatu bintu Zayd ibn Amr moo ko wax ci kan waxul sabab kan ko dama defee ni ci Zubayr ci Amr ibnu Jurmuus ma rayoon Amr defe naa Amr ibnu Jurmuus ba mu rayee Zubayr ibnul Awaam ndeysaan ci xarbul jamal taqarruban ila aliyin defe ni loolu dana neex aliyin ngir li Zubayru ànd ak ñu safaanoon teeg moom ah dikk nañ ni aliyin rey naa Zubayr mu ne ko ni ko maanaam dégg naa weneen ni maanaam xaw ma mu ni ko dégg naa weneen ni woon qaatilu Zubayrin fi naar Bachir bi dox idfa ana mu ni ko kon xamal ni safara nga jëm mu ni ko nag ñun bu ñu leen xeex bu ñu xeexee yéen dem safara bu ñu leen xeexalee dem safara daal di bëgg a safaan ñàkk waaleykum salaam wa in tuxaffaf anna su fekkee dañoo woyofal anna fasmuha kon lisimam ah istakkan na nëbbu na du dëgg waj al defal loolu gisaguma ko kat fas bu ñu woyofalee anna muy an kon it du tee mu jëf waaye fasmuha lisimam istakkan na nëbbu na nekk damiru shaan dégg nga wajal defal alxabar xabar ji jumla tan muy jumla min baadi an ci gannaaw ànna min baadi haa la bëggoon wax waaye pour woy wi nag mu daaneele nuun ni ki fale moo tax mu ni min baadi an izhaarun fi mahalli lidmar maanaam indi na lismu zahir te place u damir rek la waroon min baadi haa rek la waroon a wax waaye nag pour woy wi jekk moo tax mu ni min baadi an joojale du dëgg ali du dëgg su ko defee ànna ni ki alimu an yu ammaluuna fa jaadu qabla an yusalu bi acdami su'li alimu annahu damiru shan annahu xam nañu ne annahu ni ki moom day moom day ci wala fi damiru shanu la xam nañu ne moom daal yu ammaluuna def na leen yaakaar du dëgg yu ammaluuna mooy xabaru anna lisim ja damir mustatir la ma ngi dellu ci shan dégg nga waaw jumla ji xabar la mooy jumla yu amaloona wa in yakun filan wa in yakun filan wa lam yakun duaa wa lam yakun tasrifuhu mumtania falaxsanu lfaslu bi qad aw nafyin aw tanfisin aw law wa qalilun dikru la wa in yakun bu nekkee fiil jooju nara doon xabar jumlay fiil ji doon xabaru an jooju ñu woyafal te damir bay damiru sha'nu bu nëbb jumla ji nar a nekk xabaram bu fekkee jumlay lisim la kooku laa xubaara alay amul wax mën na sës ci an ja direct wa axiru dawaahum an alhamdulilahi rabbil alhamdulilahi mubtada xabar la jumla ji mooy xabaru an amul faasale dara xewu fa comme jumlay lisim la annahu alhamdulilah ñu ne an moom day nëbb na huwa alhamdulilah bu dee jumlay lisim su dee jumlay fiil itam bu dee fiilu jaamit kooku amul benn problème mën na ca sës asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum du dëgg wa an asa an yakuna wa an asa an yakuna du dëgg annahu asa an yakuna asa fiilu jaamit la kon diggam ak an aajowul faasale ba tey su fekkee ni fiilu mutasarrif la waaye nag duaa yu la ba tey ni ki wal xaamisatu an ada gadiba allahu alayhi ba tey kon gadiba fiilu mutasarrif la du jaamit waaye nag feelu duaa yi la kon it aajowul fasale amma bu yooyu nekkul nag a fal ahsanu li gën a rafet moom la ni wa in yakun bu jumla ja nekkee di feel walam yakun te nekkul duaa yan feelu duaa yi walam yakun te nekkul gisal kii wa in yakun lam la de du in de kii lam la de gisuloo kii dafa yàqu dañ ko defar wa walam yakun te nekkul tasrifa mumtani an du lu terewu te mooy du jaamit jaamit moom la tasrifam terewu ni ki asa nee na kon fal ahsanu la gën a rafet te mooy mazhabul jumhur alfas lu ñu war tàqalee diggante an jaag jumla ji bi qad ci qad wa naalamu wa naalama an qad sadaqtana sadaqtana fii lu maat la te du mutas te te mutasarrif la te du duaa yi kon dégg nga ñu fasale ko diggam ak an ji ak qad wa naalama an qad sadaqta qad sadaqtana mooy xabar ji an nab na huwa muy lisim aw nafyin wala nafyu dégg nga yaxsibu an lam yarahu ahadun annahu lam yarahu yara feel la du duaa yu te mutasarrif la waaye nag fasa la ñu diggante baag naf yu bilam ni ki an bu nekkoon an an laa yeg an laa yegkoona dëdëng awa aw tanwisin wala tanfis ni ki saw an sawfa yaati kullu ma qudira alam fa ilmu almaru yanfauhu an sawfa yaati yaati feel la te mutasarrif la waaw dégg nga te du duaa yi waaye nag faasa la ñu digganeem an jeeg saw dégg nga mais aw aw tanfisin aw law wala law allaw allaw yashaau llahu la hadda nnaasa jamian an law yashaau yashaau final boobu la waaye tàqale nañu digganteem ak ànna ji ñu weefal muy an mu nëbb damir shan tàmm nañ ko ak law wa wa an law istaqaamu ba tey istaqaamu fiilu mutasarrif la waaye law jaar na fa wa wa qalilun lu néew la ci taalifu naxwi yoona zikru law tudd law maa annahu min alfawaasili fi l arabiyati l mashhura nee ñu nag badru diini ba muy saraal baayam ba àgg ci wa qalilun zikru law dafa déggul muraadu baayam mu defee ni baayam dafa jublu ni néew na lu arab tudd law mu mu daal di ni naam bal zikru law kathirun nangam ak nangam ñu ni badru diini xamul muraadu baayam baayam dafa jublu ni néew na lu ko naxwi yoona yi tudd waayam annahu min alfawasil bariwul lu ñu ko wax limaale waaye ci la de waaye jubluwul ni néew na lu ko arab de tudd déedéet nu dem waxu fi fat ka anna aydan afalaa yarawna allaa yarji ba tey laa xarfu na fi laa ji jaar na fi an laa yarjiu boo rafaa yarjiu la nu wax de lu dëgg alimoo an yu amaluuna fa jaadu qabla an yusalu bi azami su'li foofu nag mooy fa laxsanu la wax xilaafu laxsan mooy bayti woowu alimoo xam nañu ne annahoo naka ñoom luy mbir day yu amaloona dara jaaru fa kooku nag waroon na am benn ci faas yi moo ko doon tax a rafet ah waaye nag ibnu malik dafa ni li gën rafet rek nga xam ni la gënul rafet a nga foofa bismi añ waaw am nañu jàng añ yu timmu rabaata añ yu timmu ñu ni kookoot amul fasil waaye kooku njàngin la ah dégg nga waaye du njànginu ashiru sax du dëgg ndax du shudur wa min ma waxal wa maqara an yutimmu radaata bañ a jëfloo an ji ah shudur waaw kay shudur la xiraatu shada la te itam ànd ak am ñu ni an yutimmu moo doon cosaan illa annahu iktafa bi dammi anil waaw kama iktafa bi fi qawlihi taala wa yad'u linsaanu bi sharri duaahu bil xayr yad'u ayin la gu ñuy wëcc ah yad'u fii lu mu daari on waaye gis nga mu doyloo daam kookoot an yutimmu am nañu ne dafa doyloo daam gi waaye an yutimmoo la woon su boobaa nag dégg nga kon an ji xarafu nasab la fi'lu mudaari mi mansub la kon kon bokkul ci an ji nuy wax loolu la fa am ñu ko ñu ko taawil noonu waaye ñu ne an yu timm nag ah an yu timm moom bu fekkee dañ ko rafa kon annahu yu timm rek mooy li mu wax bismillah wa xufifat woyofal nañu ka anna ba tey ay dan ba tey ni ñu woyofale an moom itam te jëfam des fa moom it fa nuwee ñu yéene mansuubuhaa lu ñu nasabam maanaay fa yuqaddaru ni ki ka an wari benn araba ngi wax gëleemam di ko tagg ah ni fa wa ida jarjara baadal xibbi jarjara fi xanjaratin kal jubbi ka an waridayhi risaa qulbi wa tey am na ko ni wa sadrin mushriqul lawni ka an sadyaahu xuqaani wa sadrin bari na dëng mushriqul lawni laa xamoon kii dafa dama gis foofu mel ni ku ni musriqu sadri wa naxrin musriqu naxri wa sadrin bari na dëng mushriqu naxri buy lerxat pottaxam am na ñuy wax musriqu lawni ka an sadyaahi ka an sadyaahu xuqaani ka annahu sadyaahu yaari weeni dënn booba xuqaani ñaari xoq la kopp yooyu ñuy defee ay kilo di ko nira léegi benn jigéen bismillah am na nag ñu ko jëfloo foofa ni ki baytu woowu moo xoon léegi ka an wari dayhi risha aaxul bii foofu ka an ji nga bi ñu koy faleet nasaba lañ ko wari dayhi mooy li si bam ci boobu riwaaya daal ka an lam tax na bi lam si gisoo lam ji ñu ko taf la bi nga xamee ni fiilu mu daal mu ne ko fet ka am na ay dan fa nuy wa wa rab garu riwaaya nañu mansub ba lisim je saabitan yaa ji sax ni ki baytu woowu ka an wari dayhi kooka moom moo tax mu ne waru wee saabitan ay dan ka an na moom dégg nañu ci ñu jëfloo ko moom it ni ki wari dayhi ak bañ koo jëfloo ni ki ka an sadiyaahu bismillah
léegi dafa am laaj yu ñu bëgg laaj ci buntu boobu. benn bi mooy laraab inna haadaani la saaxiraani.
ah. qad qiila inna za damiru shaani wa qiila maanaahu naam yooyu ay tawilaat a ngi ci daal am nañu ne inna haadaani la saaxiraani kooku min baabi man yulzimu ma maanaa haadaani ñu bàyyi ko ci alif faw ndax tasniya ak luñ ci yëgal tasniya am na ñuñ dañ koy bàyyi ci alif faw palaasu rafa ak palaasu nasab yëpp ci yenn làkki arab yu fegg yi nag ñu ne inna haadaani qad qiila inna di damiru sha'ni am na ñu ne damiru sha'ni la dégg nga ismu inna di innahu haadaani la saaxiraani ñu ni kon nag waaw laam gu ñuy jékki-jékki delli ci xabar mubtada comme inna hoo ji damiru sha'ni la nëbb bu ñu ko waxee laa wax kon haadaani saaxiraani mooy xabar kon haadaani lu muy doon ñu ni mubtada ana xabaram ñu ni la saaxiraani ñu ni mubtada zaydun la qaa'imun ndax des na ko wax ah dégg nañ ko ci waxu arab lu ci suloor rek de am na ku arab bu ni ummul xulaysi la ajuusun shahraba tarda min allaxmi bi azmi raqaba inna ummul xulaysi mubtada la ajuusun di xabaram déggoo mu dolli ci laam ah déggees na ko ñu ni kon laa gi dafa dolli ko ci xabar waaye xabar la am ñu ni inna bi maana naam haadaani la saaxiraani ba tey laam ga ci loolu am na ñu ni dafa koo dawal ni ki ala lugati man yujril musanna ala al alifi fi fi xaala fi axwaali salaasati nga xam ni kon inna haadaani barabu nasab la ne ba tey yooyu ay wax lay ci nax yoon wax
beneen laaj ba tey ci comme ci buntu inna bi ñu jàng ba tey dafa am lu kii wax kii Ibnu Hisham wax ci téeram Suzuuru Zahab ci wax ji di bëgg a ñëw. mu ni bokk na ci place mu ni antaqan fi awwali place yi nga xamee dinañ fa dinañ fa fata dinañ fa.
fata Hamza Inna. mu ni antaqan fi awwali jumlatil mudaafati ilayha maa yaxtas bil jumlati wa huwa is wa ida wa xays. naxu naxu jalastu xaysu inna zaydan jaalisun. mu wax foofu mu ni waqad ulia alfuqahaa wa gayruhum fatxi inna baada xays mu ni wa huwa laxnun faaxisun laxnu la ndaxte xaytu jumla la war a laaf inna soo ko kasraa li mu àndal jumla la soo ko fataa mu war a nekk masdar nag xaytu bokkul ci laaf moom rek da nga naan jalastu xaytu zaydun jaalisun zaydun jaalisun jumla ji noonu la ko